Ndiaye Diène bàyyeekoo desaan a Fatick desaan Pape Socé ak Ndiaye Diène Pape Socé ak Ndiaye at maa laaj ziizi ndax pare ngeen ko waaw laaj na Ndiaye Diène laaj na Pape Socé mën ko loola la man ko sànni sànni arbitre sifflé na Ndiaye Diène ak Pape Socé ku ne yaa ngi kàbbar ku ne yaa ngi kàbbar sa morom ko ànd ak julli kabar gu ànd ak kabar gu ànd ak julli la ñaar ña ngay lewtoo Pape Socé ak Ndiaye Diène Pape Socé Ndiaye Diène Pape Socé Ndiaye Pape Socé remise na Ndiaye jël replier Pape Socé ak Ndiaye jël ndeysaan ña nga sa naa la jokkel ma ngay ñammi ñammi taxawatul toogatul waaye Dame Souguer numéro 2 moo leen toogatul taxawatul ndeysaan ñu ngi lew too ñoom ñaar Ndiaye jël remise na Pape Socé arrière waaw Socé fayu na Ndiaye Diène Pape Socé ndeysaan Ndiaye Diène laat Pape Socé Ndiaye Diène Pape Socé da ngay lewtoo ñoom ñaar da ngay benn bennal da ngay benn bennal ñoom ñaar Ndiaye Diène Pape Socé ña ngay benn bennal saaku yi fekkiwul kenn koy fekk si saaku yi fekkiwul kenn koy fekk si Abdou Seck ngi lay ziar la jox sa wàccuwaay Abdou Seck di la wax yàlla sa jàmm bu yàgg yow Abdou Seck yow jotal bu baax garaan bu bëgg doomu aadama Abdou Seck ndeysaan Njaay Jeen songoon na ñoom ñaar mu ngi door passe soosu perkil na ko Njaay Jeen arrière laaw songu na ko mu tëru ko Pape Socé Njaay Jeen Pape Socé Njaay Jeen Pape Socé gi doon Njaay Jeen arrière na du xew Njaay Jeen dem na ar Njaay Ndiaye Jr ñëw dem na ardo Ndiaye Jr nga dem ardo Ndiaye Jr nga dem ardo Ndiaye Jr dem na ardo même bu daane Pape Socé Ndiaye Diène Pape Socé at Ndiaye Diène Pape Socé Ndiaye Diène da ngay lewtoo ñoom ngi dox si kawam Ndiaye Diène a ngi dox si kawam Pape Socé Pape Socé arrière na Ndiaye Diène Pape Socé Ndiaye Diène dafa def écran rek dox dooti Pape Socé Pape Socé dóor na Ndiaye Diène arrière Ndiaye Diène Pape Socé Ndiaye Diène Pape Socé xeex dooral ma dóor xeex dooral ma dóor mais Ndiaye Diène daa dem ardo ñëw rek dirigé xeex bi Ndiaye Diène làmba taakee ba ndeysaan ba ngi noonu boy seere waat laaw moom Pape Socé Ndiaye Diène arrière Ndiaye Diène dox na si kawam Pape Socé nga arrière Ndiadiène door na Ndiadiène songu na ko bu laa ilaaha illallah da kaa cibu cibu bu baax sax oho Ndiadiène ba loolu di ko amaat songu boobu doo ko amaat Ndiadiène dooral ma door dooral ma door ah Pape Socé door na ko mu nelaw Pape Socé door na ko mu nelaw laa ilaaha illallah Pape Socé door na Ndiadiène mu nelaw Pape Socé door na ko mu laa ilaaha da door mu nelaw Dakar door mu nelaw Dakar door mu nelaw oho Ndiaye Diène nelaw na eh, jëlal ma Dakar door mu nelaw nelaw la ilaha illallah oho Dakar door mu nelaw wow wow pop pop laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah da ka door mu nelaw nelaw nelaw